c'est vrai que y a plus de 300 chevaux professionnels au Sénégal. Euh, il est temps ñu am infrastructure yo xam fi Grand Prix. té loolu di ngeen gis ne dinañ ci taxaw alimentation euh, chevaux yi euh, dis na ci organisateurs yi. santé yi war nañ ci taxaw mais loolu yépp man ak président bi ñoo ngi organiser journée de réflexion Té di ngeen gis euh, son excellence le président de la République ak gouvernement bu bees bi seen loxo dinañ ko def ci ci ci course yi ba ngeen gis ngeen ko visité tout dernièrement arabe pour bor Kébémer professionnalisme bon ma fa gis mm-hmm. daf maa yokk encouragé et je ngi félicité xale yi quand je vois amour biñ ci am njortu naa ne course bi il euh, euh, y am na avenir bu rajo au Sénégal je vous remercie